pour préparer guddi bu mag mooy guddi Cheikh Ahmad Tidiane euh, Chérif ñu koy toftale laylatul xatmiya bu famille Assane Deme bu Medina Baye di organiser mooy daje bu mag a mag boo xam ne souvent délégation boo xam ne gouverneur moo koy jiite moo fay dem donc guddi bu mag la daje bu mag la léegi ci ci daje ci réunion boobu CDD bi service yëpp ñoo ñoo ñëw police euh, sapeur euh, médecin euh, service d'hygiène ONAS UCG mais mairie Kaolack ak yeneen service bu ñu defee réunion bi ba man en tant que préfet représenté président de la République représenté état bi day leen jéem a dalal seen xel di leen wax ni ñun agent de l'État suñu mission mooy taxawal askan bi taxawal askan bi taxaw bu bu rafet te doo leen laaj dërëm bu neexal service bu nekk dina def liggéey bu mu ko war pour bés bi ñu réussir ko. sant yàlla bu baax di nuyu mboolem ñi ñuy seetaan.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 ba nit ñi dal ci jàmm dégg ak ak salaam.